ci nuyoo bi ki nga xam ne moo tax ñu daje fi tey di sama sang waaye nag sangar bi ñëwagul njaam bi moom moo du benn rek laa ko nangalugum pour l'instant ah ñu taxaw fi nag taxawaayu président Abdoulaye Daouda Diallo di càmmiñ ci Fàkkiné bi muy waajal bis bi mu dem ci moom waxtaan mu amoon yéene lool ñëw fi yëmbal mais gàllankoor téye moo tax mu yebal Abdoulaye Mamadou Guissé mii nga xam ne conseiller spécial am la pour mu ñëw teewal ko fi donc kàddu gi Abdoulaye Daouda moo ko moom man li may def rek mooy dalal leen yéen ñëpp ci Yeumbeul Nord comme yàlla yàlla tax def na ne man maa di coordonnateur Abdoulaye jërëjëf asalaamaaleykum waa Yeumbeul asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi remercier doyen Samba Demba Ndiaye euh, honorable conseiller spécial du président du conseil économique social environnemental Abdoulaye Daouda Diallo di remercier aussi délégation bi ñu àndal euh, mais surtout di remercier euh, Adja Fatou Kiné Diop Dame Mansour bi nga xam ne relation yi ñu am ak moom dafa yàgg mais tey li waral suñu teewaay bi fii mooy le président Abdoulaye Daouda jàlloo ñëpp xam nañu lu mu mel ak le président de la république Macky Sall fépp foo xam ne ñu ngi liggéey lu jëm ci mag président de la république Macky Sall wala mouvance présidentielle moom Abdoulaye Daouda Diallo noo def mu dugal ci loxoom. moo tax tey mu nañ nañ def forte délégation ñëw représenté ko fii man nag. Euh, damay wax ne rek doyen bu waxee ba pare sax Samba Demba Ndiaye man waruma wax parce que moom xam naa fu ko Abdoulaye Daouda Diallo teg xam naa fu ko président de la République Macky Sall teg donc euh, ñuy remercier euh, la grande Fat euh, Fat Fat Kiné Diop di ko wax ne ça a été vraiment meeting bu mel nii kenn mësu ko gis Sénégal sérieusement donc tàccu leen ko Euh, donc ñu koy ñu koy wax ne rek président Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi lay tàllal loxo di la wax ne buntam ubbi na la ko guddeeg bëccëg ndax délégation bii ñu def c'est pas évident parce que suba ba léegi ba 18 heures 45 mu ngi may woo man ak euh, honorable Samba Demba Ndiaye di ñu wax ne fan ngeen nekk foo leen toll donc loolu mooy wan attachement ak affection ak surtout engagement bu mu am pour jàppale Euh, la grande présidente du mouvement Mati euh, mouvement ànd taxawu yëmbal te nag loolu dafa dafa jot nag dafa jot ñu taxawu yëmbal jërëjëf. tey dañ fi ñëw ànd ak délégation boo xam ne tey jii kenn bu ci nekk ci ñi ma tudd fii mënoon nga taxaw fi wax sa dayoo may na sa liggéey ci dëkk bi ci département bi may na la waaye tey ni am mbégte taxaw fi tey di wax. sunu mag sunu grande sœur di présidente Adja Fatou Kiné Diop di mouvement Mati ma bëgg na ngeen tàjji ma Fatou Kiné bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yàlla dafa dogal bu duggee ci politique man naa ko ci ndax maa dugg di ànd ak son excellence le président Macky sal mu ànd ak man ànd ak man ba li fekk ko ci kon maa ngi leen di gërëm baax di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen. programme bi am na réussite ndax woote ñu wuy si la yombul mais ci kon ku fi ñëw xam ne programme bi macha allah amoon na solo trop tey nag di ko félicité ku xam mouvement bi xam ne mi ngi liggéey lu am solo ci wàllu développement image yi wane na ko sànq liggéey la boo xam ne entamé na ko depuis des années ci wàllu social ba tey jii mu as fii kon li mu wax rek di gërëm waa mouvement bi yëpp dinañ ko dénkaat ngeen gën ko jàppale te xam ne moom yé yéen a yéen yéenay soxlaam yéen ci yéen lay ci yéen lay gont ànd nag dafa jafe rawatina àndu banlieue rawatina àndu jigéen ndax xam nañu soxla yi jigéen ñi ñoo yor kër yi jigéen ñi ñooy joxe dépense jigéen ñooy fay école jigéen ñooy def lépp ba a baax a baax kon jigéen ku ko téye rek honorable Moustapha Mbengue téye nga Sénégal ku téye jigéen ñi Makhtar Diop téye ku téye jigéen ñi honorable Samba Demba ku téye jigéen ñi Adja Khady Ndiaye téye téye ñun nag bi ñu gërëmee Fatou Seye ba pare sant ko ci taxawaayam di ko ñaanal yàlla lu man ren yàlla man deen ko dañ fi ñëw nag ànd bu dee daje bu baax a ñoo ma ci kaw loolu nag ñu teew fii def délégation bu am solo boo xam ne bëggoon naa ñu mel ne honorable Moustapha Mbengue ñëw fii ak suma Samba Demba Ndiaye di leen woo rek ngeen baal ñu taxaw fii Makhtar Diop ak tous les responsables ndax li ñu yónni ñu ñoo ko bokk son excellence le président son excellence Amadou Ba ma bëgg nag égamen ñoo leen s'il vous plaît xani ngay ngeen joxe ngeen joxe yóbbante son excellence le président notre candidat Amadou Ba maa ngi bëgg ngeen a tàcc ma Amadou bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla li mu yéene ci Sénégal yàlla yàlla motu ko li ñuy wax nag Fatick ne boo ko war wax ndax ku waxaat ci social xam aussi son excellence Amadou Ba premier ministre notre candidat Benno Bokk Yaakaar yéene bi mu am ci yéene bi am ci jigéen ñi mais yéene bi xam ne am na ko ci département de Kër Massar fàttali ci di jigéenam di sëram di xaritam mu am mbégte nag bi mu yëgalee bis bi mu am ci mbégte mu ne ngi ànd ak yéen ànd ko ak kilifa yi teew fi yëpp di leen félicité di leen di leen wax ne moom mi seen biir di leen dénkaat ko bopp ginnaaw bii ko diggee seen bopp pare mu leen dénkaat boppam ngeen mottali yéenam ci Sénégal mais mottali yéenam ci département bi nga xam ne nekk mu département Kër Massar mu ne bi allah li ñu bëgg rek mooy ci élection yi ñëpp jàpp ci ba li ñu yéene Sénégal lu mën ko mottali guddi na ah te am nañu ñeneen ñu war a wax te li may wax kaddu honorable Moustapha Mbengue la honorable honorable Samba Demba Ndiaye la kenn bu ci nekk mën na ko wax. moo tax ñu parole ñu àggal yàlla julli wa naa sama ñaari waajur sant sama ñaari waajur di sama borom kër bi baax bi muy laaj saw nga xam ne kenn du moom ci man may nuyu monsieur ministre Amadou Ba du nuyu ministre Abdoulaye Daouda Diallo yéen fi délégation bu am solo ñu ne sama càmmiñ ma ma du Gisee ak ma madame Paye macha allah di kontaan ci ñoom baax a baax di waxaat nag ci mouvement bi bi nga xam tey moo waral bis bi ñu koy laas lancement ndax la mouvement bi am na léegi deux ans ba dugg trois ans macha allah ñu ciy liggéey léegi am solo su ma taxawee tey di wax tey yàlla ak jigéen ñee tax ñoo ma jàpp jàppale ñoo ma sëfru ndax kenn nit mënul dara ñoom ñooy jàpp jàppale ma fu ma leen woo ñu wuy sama amuñu heure amuñu même heure bu ma leen wooyee ñu wuy sama amuñu heure amuñu leen macha allah di leen ñaanal jàmm di ñaan délégué de quartier yi Pa joge seen moom mooy seen responsable waaw di ñaanal euh, euh, délégué di ñaanal imaam yi Pa Maguette Ndiaye moo seen délégué mooy seen présidente moo tamit di ñaanal. commissaire bu yëmbal di ñaanal sous préfet sama càmmiñ vraiment macha allah lu ma bëgg na ma ko yombal mooy na fay di ñaanal ñi fi teew ñëpp ñëw bi ngeen ñëw fii yàlla mu nekk seen ñëw bu mujj te bu yàlla muy gën a en même temps waaw di ngeen ñaan bu baax a baax a baax jox di maa ngi nuyu département bi yëpp parce que moom it lim la yem pare te Modou mooy man maay moom macha allah ndaxte bu ma taxawee fii tey. li wax ci lenn lenn lu mel nii rek yàlla moom moo tax ndax moo ko daan def ma ko jàppale ba nit ñi ñëw ci mur moo du may ne bàyyi ma continuer ñëw mouvement mu ne fay ndax maa ñun dañoo yàgg maa ñun dañoo dëkk bu yàgg maa ci benn barab lu ma wootu ñu wuy si ma fu ma taxaw ñu taxaw mu leen fay ndax li fi ñëw tey jii macha allah ku bëgg ku doo ko def ma ñaan département bi Kër ma Massar ñu jàppale Amadou Ba ndax ñun jigéen yi fi nekk amuñu doole amuñu ku ñu jàppale doole jigéen ndox doole saxaar raay te soo ne ci dëkk bi nag ki xam ne moo ne ca moo ne moo ne ci bopp bi mu ne fi yaakaar ne ëllëg buñ ko jàppalee dëkk bi dina am changement nañu ko jàppale département bi soxla nañ dimbal soxla nañ ko leen jàppale te nag yaakaar na ku ci amul ba ne bu yàlla dimbalee carte gi leer mu toog fu mu war a toog am na yaakaar ne amatul xalaat ndax moom tey bu fi toogee tey bu gañe woon tey toog tey ci nguur gi xam moom amul lu ñuy changement ci ay place day xëy liggéey du bureau parce que xam na point bi ndax mag ma mag ñoo ko àndoon commencement ba fin kon nag rekk waaye département Keur Massar jàppoo leen ñu dóorandoo xàccandoo dóorandoo jël réew mi teg ko ci loxoy Amadou Ba su boobaa de jigéen di ngeen kontaan de tax du seetaan kon am naa yaakaar ndam rek mooy am incha allahu rabbi waaw Abdoulaye Daouda Diallo maa ngi koy gërëm bu baax yebal délégation madame Paye sama xarit macha allah Mamadou gisee moom ma rakka noo julli sa benn baraag yàgg na xaw ma amare ni du tey gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp bis bi ñëpp a taxaw ñëpp a taxaw mu may na fay waaye yàlla na yàlla fay dikk bi ñëw fii ñëw fii mu may na fay mouvement bi nag moom mu ñoom ndax maa ñoom ñi nga ànd deux cent trois cent di liggéey kenn fekkuñ ci ñoom nag amul ku ne fàttali ne baa koy jox sàkku ceeb jox ko mouvement bi amul ko fàttali ne amul la bu mu jox mouvement bi amul sama doon laay demal ñoom te bëgg naa ne jàppale ni waaw jàppale ni bu a baax a baax leen woon jàppale ndax dañ koo soxla kon nag man ma leen ngir yàlla département bi jàppale leen Amadou Ba mu gagné su xëyee liggéey dugg ci bureau Sénégal jëm kanam salaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah waaw. merci beaucoup Deme. waaw. <laughs> Fatou Kiné laa bëgg ngeen tàcc bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. ca kaw jóg. man tey sama lii booy bi. tey bokk na ci tey li ma gën a neex ndax am sa mag ku ne nag bëgg am mag yu mel nii nag. kenn ku ne bëgg nga am mag jàmbaare nii waaye kenn ku nekk war nga am bëgg war nga am bëgg nag mag bu am njëriñ nii Diop jërëjëf am nañu mbégte bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fekkee seen mouvement bi nga xam ne moom mooy mouvement Matit nekk fii ci euh, département Kër Massar ñu koy ñaan yàlla nekk nekk mouvement bu sore sore nekk mouvement bu am njëriñ kon ñu ngi gërëm di sant son excellence le président Macky Sall di gërëm son excellence le président Macky Sall ko ñaan yàlla ku xam président Macky Sall xam ne réew mi am na fu ko fekk waaye am na fu ko yóbbu Sall Ndiaye jàpp naa ne ci réew mi nit yu liggéey nekk na loo xam ne xaw ma kañ la ma waxoon rek bëgg naa ba Sénégal bi fay ku fi ñëw fàttali ko son excellence le président Macky Sall te loolu nag. li nekkoon ci moom yëpp nag bis ki tey teg président Amadou Ba ñu ñëpp ànd nañu engagé ci wetu son excellence le président notre candidat monsieur premier ministre Amadou Ba di ko ñaanal yàlla moom premier ministre confiance bi son excellence le président Macky am ci moom ba jël ko def suñu candidat yàlla dimbalu ci ba am ndam ba président Macky Sall ni mu PSE bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ànd taawal ko ba mu agsi say fii mu man koo wéyal ba Sénégal mën a jëm kanam réew mi nag dafa soxla stabilité ndax ku wax gaz wax pétrole fu mu dëkk boobu jàpp na ne soxla na stabilité te stabilité boobu nag yaakaar naa ne soo defee am di gërëm commissaire di gërëm préfet di gërëm la sécurité di gërëm la jeunesse du mouvement Mati dinañ wax ne rek réew mi bu leen ko kenn tàlloo bu leen kenn rey kuy rey rey sa baay wala nga rey say doom loolu na leer képp ku ne la ndax moom ma ngay tàll pënë wala ay doomam ñu tàll pënë wala doomam wala jabaram tàll pënë wala yëpp yii du xeex du xuloo son excellence le président Macky Sall bi mu assisté bi ñuy xeex yi bu ko fii liggéey moo ko ko may yaram ak taxawaay bi Sénégal ñu bëgg li bëgg mooy fi yàlla yóbboo ba le vingt cinq février dama bëgg yéen seen xëy suma deuxième petit déjeuner def seen café au lait xale yi jigéen def make-up tagal dem ca bañ làkk na jël nag bulletin ba sotti ko ca dëpp ci biir biir urne yi wootee son excellence président Amadou Ba kon jërë ngeen jëf di leen gërëm bu di gërëm ñëpp vraiment kontaan nañu la presse tout le monde la sécurité la police merci beaucoup yàlla yàlla fay leen salaamaaleykum wa rahmatulah. Didier Jeannot merci beaucoup mon cher Kodian merci beaucoup Matas Matar si jërëjëf Abdoulaye Gaye Matar euh, Assane Diouf ñëpp vraiment ñu leen gërëm Baba Cissé